alal ja mu poussé ko nono boromam yaa ayutuhal nafsu mun mahina irjiha ila yokkute rek alal ja mu poussé yàlla boromam yaa ayutuhal nafsu mun mahina irjiha ila rabbika radiyatan mardiyatan fa daxuli fi xebaadi wa daxuli jannati sëriñ Saliou bis booba daka daan xelaat moo tax man na ne maay doomi Seexul Xaddiim maam mujj ci jamono waaye li jamono ji di bari bari man kenn rek laa doyloo la baayam seexul xadim defoon baayam seexul xadim gars yi dañ ko fekk ci këram gu mag gi ci jurbel naan ko bilaay sëriñ bi doo nit mu ne leen kenn dul nit ñu ne ko sëriñ bu kuy nit mu ne leen ki nga xam ne mooy yëram jaam ñi ñu ne ko fan la mu ne yaa maalikal mulki yaa man jallaxan xawadi waaye irham jameexal waraa kooku dul nit sëriñ Saliou nag kooka la jëlool rek dëgmal ko xam ne moo fi jara yaakaar moo fi jara bëgg moo fi jara wóolu ndaw ñi xam loolu ci sëriñ Saliou bëgg sëriñ Saliou ba képp lu waaye dëgër dëgër ci nit boo soppee Serigne Saliou sa mbir day baax. lan moo yi bëgg Serigne li tax ñu bëgg ko yokkute da caa ne sopp Serigne Saliou yokkute la ndax Serigne Saliou day nitu yàlla bu kenn naa di nitu yàlla koo xam ne boromam da ko wurus ba lu mu def ko te man Serigne Cissé mu Serigne Babacar damay faral di wax ne bu sa loxo jotewul da ngay làqoo ki loxoom jote mu lay jote leen. Hmm. Serigne daa jote diggam ak boromam. bàyyam Seexul Xadim jubal boromam mu jubal boromam moo tax ndaw ñi bëgg ko ndax fajug aajo lañ ci bëgg. Cheikh Amar loo ko mën a wax Serigne Saliou doy dafa ñam Serigne Saliou gis nga loo ñamul. boo ca bëggee wax ak ñeme yàlla la. xam li ko Serigne Saliou def ak fi ko Serigne Saliou fekk ak fi ko Serigne Saliou yóbbu moo tax léppam di Serigne Saliou sekkereem lépp Serigne Saliou amul leneen te xëy na Cheikh Amath bokk na ci ñi ni ñi gën a ràññee mhm. waaye jeunesse bu léegi bi bari na ci génération ci yoonu murit koo wax mu ne leen Serigne Saliou wa dee ci sama xol bi ndax Serigne Saliou ma fekk ci lëndëm génne ma ci lëndëm dugal ma ci leer te lan la ci toogaay la la fekk wala lenn mu feeñoo li ci gént defe say mbir mhm.